pour hmm. man sax du ñu ay force de l'ordre mais force de désordre lañ. ndax hmm. désordre bi ñoom ñoo koy indi. Hmm. fekk ab ful boo mën a gérer nga sànni leen naan grenade lacrymogène kooku yow doonatoo force de l'ordre force de désorde nga yow yaa indi désordre ci dëkk bi. loolu moom moo am. mais est-ce que maîtrise bi Antoine jom di wax naan maîtriser nañ situation bi est que du dëgg tamit buñ ko jàppee ci ne euh, ñaari fan yi jàll manifestation yi ni mu meloon par rapport ak tey tey ku dem Dakar di nga gis ne euh, nit yi ñi ngi circuler ci ni mu leen neexee ñi ngi dox euh, ak euh, benn jafe-jafe amul est-ce que tamit maîtrise bi muy wax tamit mënuñu ko nangu. mais Antoine Diome maîtriser wul dara mais bu mais situation bu ñu ko cette situation normal boo amee. Hmm? université Cheikh Anta Diop dañuy jàng. Dakar mais manifestation yi recul am na tamit. Ah, loolu loolu loolu mën naa nekk loolu mën naa ko nangu. mais hmm. maîtriser wuñ situation bi. Hmm. université Cheikh Anta jànguñu. dakaar ah. Dakar station bu fay dox instant bi bu ñu yàqut sax kenn nekku fa benn benn pompiste nekku fa. Hmm. banque yi tijjiwuñu. Hmm. élèves yi ñi ñëpp ñi nga xam ñi ngi jëm ci ex eh, examen jànguñu. Hmm. am na ñoo xam ñoo ñàkk génn am na ñoo xamante ni bu ñu bu ñu bu ñu liggéeyul benn fan rek du ñu lekk. waaw lu mu métti métti métti dañu danañu risqué. génn. dem fort tuuti daal di demaat. Hmm. loolu mënta ñàkk. Hmm. ndax loolu man dund naa dund dund dund naa ko Dakar. Hmm. dégg naa ay nit tamit wax ko que ñun dañuy tijji rek bu 14h ñu tëjaat. Ah. ndax ñun mënuñoo ñàkk am lu ñu jox suñu njaboot. loolu nag situation bu ñu maîtriser loolu yëpp du am. effectivement situation bu ñu maîtriser boo amoon championnat Sénégal. tey ji weekend bii du am weekend bi amul. dañ koo suspendre ba beneen yoon hmm. artistes yi waroon organiser ay concert hmm. concert yëpp dañ ko annulé ba beneen yoon hmm. situation bu normal bu amoon yooyu yëpp day am ci jàmm ak salaam situation bu normal bu amoon nit ñi dañuy connecté wu internet normalement kon situation bu normal amul situation bu normal tamit bu amoon armée du nekk ci mbedd armée du nekk ci mbedd mbeddu dakaar boo romb armée moo fa taxaw Mm-hmm. situation normale bu amoon armée dafa taxaw. ñi nga xamante ni ñoom seen rôle mooy maintien de l'ordre ñoom ñoo fay taxaw xam nga armée moom lu du maintien de l'ordre mm-hmm. maintien de l'ordre ñi nga xam ñoom ñooy yor ay lacrymogène ñooñ ci maintien de l'ordre la dox mais armée maintien de tax ko jut ñooñu ay ñooñu moom ay balles réelles kese lañ yor mais est-ce que manifestation yi depuis ngeen commencé ba léegi li ngi nekkoon euh, daanaka objectif bu taxoon ñu ci bari euh, doon ko doon wax naan euh, dañuy manifeste mooy dañu wax na jële fi Macky Sall ñu ci bari loolu lañ doon wax mais dañuy gis ne centre ville bi duñ koy jege wala book euh, da ngay gis naan ay aller au centre ville aller au centre ville mais à la fin euh, centre ville bi moom dafa mel ni il est moom. non man loolu moom fu mu am dana am foo xamante ni soo objectif du yomb du pour nga atteindre ko. Hmm. combat boo gis noonu lay demee. da nga am objectif mais sa objectif pour nga atteindre ko. mënta hmm. yombee ak noonu. am na benn ville bu nekk Ukraine. bu tudd Bakhmut. waaw Bakhmut lu ëpp ñaari weer a ngi nii. Hmm. armée bu Russie ak armee bu Ukraine di xeex ñoom ñaar pour contrôler ville boobu. ñoom ñaar hmm. ñëpp seen objectif kenn ku ne mooy contrôler ville bi. mais kenn ku ne amul ku ci mën a teg loxo ni si fi mu ne nii à 100 cent yaa mën a con yaa contrôler loolu. combat nag noonu lay demee. du benn fan ngay atteindre sa objectif du ñaari fan ngay atteindre sa objectif l'essentiel moom mooy lii lii di am nii bu continuer sénégalais yi nga xamante ne dañoo toog ñoom ñooy mujjee jug bokk ci combat ndax nit ñi mënuñoo toog ci seen kër yi duñu dund bu ñu bëggee dem weer bi dee na bu ñu bëggee dem banque jël seen salaire duñu mën a jël seen salaire. Hmm. bu dee oto yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci poor bu dakaar bu ñu bëggee essence wala gasoil station boo dem doxul bu dee yàquñu ko tamit kenn nekku fa pour jaay la. Hmm. loolu bu amee sénégalais yi nga xam ñoom ñoo toog seen kër ñoom ñooy wax gouvernement bii fi nekk dellul ginnaaw ci lii ngay def li ngay def mënta nekk boo fi mënta boo loolu nag bu mënta nekk boo mënta nekk nga abal ñu réew mi ndax lii yow yaa ngi ñuy bëgg a xañ suñu jàmb. mais est-ce que taxawaay boobu xam nga yow yaa ngi wax loo xam nii Euh, daanaka mën nañ ko jàppe ay ay rêve ndax tey buñ taxawee euh, naan euh, manifestation alors que ñu gis ne tey manifestation yi ni mu daan amee ameewu ko suba mën nañ jàpp ne moom lépp day dellu ak calme est que kon li ngay wax nii ñu ko jàppee ay rêve tamit mais géej géej dafa am lu ñuy tuddee marée haute ak marée basse du jamono ju nekk ngay am marée haute mais hmm. ni amee marée haute noonu ngay amee marée basse manifestation yi amoon France ci gilets jaunes yi am fu mu tàmbale woon. Sénégalais yi Sénégalais miin nañ leen ci saa suñ toogee moom toog nañ rek. non vi weekend weekend boo weekend bu nekk. Hmm. daan nga am cinq cent mille ci grande ville yëpp. waaw ah. bu digg daa wàcc ba cinquante mille. mais na mais sax loolu naa ko bàyyi jël référence ci événement mars yi. waaw événement mars yi fàttali naan événement mars yi six jours la woon six jours la woon. waaw ah. événement mars yi mercredi bi mu tàmbale woon. Hmm. nit ñi dañoo xeex mercredi bi. Hmm. xeex jeudi bi. xeex vendredi Mm-hmm. mais samedi ak dimanche yooyu daanaka manifestation amul woon. dafa mm-hmm. ba ci lundi bi ci la manifestation yi doog amaat mooy bis bi ñu libéré Ousmane Sonko. Mm-hmm. te manifestation yi loolu mooy départ bu Macky Sall ci la bokk. mais objectif première bi moom mooy usman Sonko ci boppam du dem kaso. Ousmane Sonko mi ñu bëgg a yóbbu kaso du dem kaso. te loolu nag jàpp naa ne ba jamono ji ñuy wax nii bu amee ku amagut li mu bëgg moom mooy régime bu Macky Sall amaguñ li ñu bëgg ci li nga xamante ni moom moo am ci manifestation yi. Hmm. li am ci dëkk yu bëri nit ñi nit élèves yi jànguñ loolu dafa impacté. man tey ci suba. waaw jugee naa Dakar foo romb daanaka amul dëkk bu gën a ndaw boo xam ne doo fa romb xam ne fii manifestation amoon na fi. Hmm. dëkk bu gën a ndaw boo xam ne doo ko romb daanaka ndax ci am na benn instant. dañu wàcc péage bi jàcc route nationale bi. Mhm. dëkk dëkk yu gën a ndaw da nga fay romb gis ni fii manifestation amoon na fi. Mhm. élèves yi mënuñu jànge fële ca Ziguinchor am ay élèves oo xam ne ñoo wóor ñi école tëj ñoom. Mhm. lan mooy problème foofu ñooñu dañuy def année balance ñoom kese euh, département bu Ziguinchor day def année balance. wala Sénégal yëpp moom mooy def année balance. université Anta Diop ñi nga xam ne dañoo waroon def seen examen nu muy deme ndax faculté de droit. yu ak euh, fak euh, fac médecine ak pharmacie ak mooy sësi ak lu bëri daal ci foofu ci UCAD yàqu na. Hmm. loolu lan mooy problème université Cheikh Anta Diop dañu koy tëj ba école ba année scolaire bii di ñëwaat. Hmm. wala ndaka lay demee. Hmm. kon pour man fi mu ne nii gouvernement bi moo am ay jafe-jafe yu mu nekk mais pas manifestant yi ndax manifestant yi pour man. détermination bi ñu amoon moom la ñu am hmm. ba tey ndax ñëpp dañ doon leen wax naan mars 2021 détermination bi ngeen amoon amatuñ ko waaw ah. mars 2021 amul bis bu juróom juróomi nit faatu juróomi nit rek amu ci waxuma juróom-ñeenti nit wala fukki nit hmm. mais amul benn bis boo xamante ni ñeenti nit faatu nañ ci amul bis bu nekk danoon am un deux wala trois yi ci gënoon bëri trois la doon doon ba hmm. ni muy àggee quatorze morts mais amul benn bis boo xamante dañu compte nañ ci neuf violence bi am keroog ah. keroog jeudi keroog ñi xamante ni ñooyu mag yàgg gëstu ci taarixu politique bu Sénégal. Hmm. nee nañ mësuñoo teg bët lu mel noonu. Hmm. ñu gis euh, violence euh, violence bi yaa ngi koy wax ak euh, moor yi nga xam ne mi ngi am tey bu ñu jëlee ki nga xam ne moom mooy avocat wu Ousmane Sonko bi di Juan Branco mel nii koo xam ne dafay superviser de loin li nga xam ne mooy manifestation yi ak torture yi nga xam ne mi ngi am ak moor yi nga xam ne mi ngi am. Euh, bay wax ne daf koy yóbbu cour pénal joxe ay euh, indices yoo xam ne képp ku am euh, témoignage wala vidéo mën nga ko envoyé mbir mi combat bi mel ni dafa dem au niveau international ñu dégg ki nga xam ne ay Éric Zemmour ay Tarek Ramadan ay Egon Chebbiasé ay ñoom nuñ koy xatee Nathalie Yamb ñoom ñëpp ñu taxaw wax ci ak ay homme politique yoo xam ne même da ay euh, influenceurs yoo xam ne tey seen yoon mosul nekk ci li nga xam ne moom mooy wàllum politique ñu àddu ci mbir mu mel nii naka nga gisee situation boobu nga xam ne egg na fi au niveau international. xam nga dafa am lu lu am mooy ce genre manifestation moo xam. Hmm. soulèvement populaire lañ ko tuddee wala luñ ko mën a tuddee. Ah. bu amee lu toll daanaka ci cinq morts. waaw ah. euh, organisation sous-régionale yi ñoom dañuy dugg. waaw ah. table yëkkati seen ay kàddu. bu tàmbalee àgg ci dix. organisation régionale yi mooy comme ça exemple organisation sous régionale CEDEAO waaw organisation régionale bu àggee ci dix normalement ñoom ñoo war a jël kàddu gi mooy Union africaine. nga xam moom moo lëkkale réew Afrique yi. waaw ginnaaw euh, bu àgg bu dépassé foofu nag jëm ay vingt. Hmm. trente. foofu hmm. mbootaayu xeet yi ñoom dañ ciy dugg. xamante waaw ONU Ah. xamante ni ñoom ñoo ëmb réew yi ci àdduna bépp dañ hmm. ci dugg dugal ci seen kàddu ah. loolu nag bu tàmbalee am rek hmm. cour pénal international dana tàmbalee mën a dugg ci dossier boobu ngir caytu ko hmm. kon Juan Branco li muy def xam na ko ndax lii di am benn enquête nanguwuñ ko cee def mu nekk ay assassinat yu leer nañ ay nit di ko def ay nit di gàddu ay fetal ci mbedd mi mooy ay nervi yu ñu recruter ñuy mm. ànd ak police ak gendarmerie. kenn waxu leen dara kenn inquiété wu leen loolu nag cour pénale internationale ku leen jébal dossier boobu kenn du wax ne dossier boobu du dossier boo xam bu receva bu recevable la dossier boobu cour pénale internationale dana ko mën a rece recevoir. te dana mm. mën a def ay caytu que lii di am fii Sénégal saytu na kii nga xamante ni le seul et l'unique responsable muy Macky Sall danañ ko ci mën a topp. ginnaaw bu jógee ci pouvoir bi wala sax bala moo fay mën a jugee ndax gis nañu président de la république yu ñu lancé ay mandat ay mandat d'arrêt international hmm. gis nañu ko kon lii de am ni bis bu ko arrêté wut foofu nga xamante ni fa lañ tëj tey ji Sall Taylor mi ma doon tudd sànq tëjoon fa Laurent Gbagbo boo tëjoon fa keneen ak keneen boo mooy tudd Macky Sall mii fa la fa la mujj hmm. ndax mars 2000 mars 2021 dafa gën a siiw ñu mars 2021 ay nit faatu nañ waaw ay nit jëri ci ay jafe-jafe. ba léegi benn 14 14 morts. 14 ba léegi ay 23 yooyu. ba léegi kenn jëleewu ci benn enquête. ñu ñëwaat ci mois de juin le 17 juin. waaw ñuy def ay manifestation ñu reyaat ñetti nit. waaw benn enquête procureur bu Ziguinchor. Hmm. ne woon ñu Idrissa Goudiaby bi faatu woon. waaw paaka moo ko faat contre expertise ñëw ni ko déedéet bal moo ko faat. Hmm. ñu ñëwaat ci le 16 mars ci procès. Euh, affaire Prodac bi trois personnes faatuwaat ci ñu ñëw lii amoon fii ci Ngor. Hmm. ñu rey fa ñetti nit. Hmm. ñu ñëwaat ba egsi tey jii ci le premier juin ñu naan ñi jamono bi ñi ngi ñi ngi naan ñi ngi jëm daanaka vingt morts. Hmm. loolu nag cour pénale internationale bu enquêté wul ci loolu man xawma ci lu muy enquêté. man euh, benn affaire euh, xaw na ma jaaxal ci li nga xam ne mooy wax ji ñoom dañuy wax ne. ñuy manifester ay rebelle leen laa ci bëggoon a yokk hmm. mooy situation bi nga xamante ni benn bokk yaakaar nee na ñoom maîtriser nañ situation bi situation bi ñoom contrôler nañ ko lan moo tax seen meeting bi ñu annoncé woon tey place de la nation ñu annulé ko <laughs> loolu laa man six cent bi ñoo wax ne dañ bëgg nañ ci dajale six cent mille personnes manifestation boobu ñu annulé hmm. man moom laay laaj Antoine Diome hmm. ak Karim Fofana waaw lan moo tax ñu annulé ginnaaw maîtriser ngeen situation bi yéen am ay sénégalais ngeen am ngeen droit am ngeen droit manifester lan maintenir leen donc li may wax léegi euh, bokk na ci loo xam ne jaaxal na ma tey ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy euh, manifester ñu ci bari dañ leen di jiiñ que ni rebelle lañ di wax ne sax ñenn ñi dégguñu olof wala ñenn ñi nekkuñu feek feneen lañ jóge ñëw feek yu noonu mais bu amee ñu dee chaque instant dañuy xam ne diw mi deekat ci dëkk bi la dëkk fee fee la dëkk fee mooy këram fee mooy këram ay mbokk a ngi nii ñu ne léegi ni ñuy mën a nangoo que ne ñi dee moom ci dëkk bi lañ dëkk waaye ñeneen ñiy manifester fa leen lañ jógee alors que ñi dee moom dañ doon manifester lool daal mbir mu ma xaw a jaaxal la ci lool ñoo wax ne manifestant yi moom planète planète Mars lañ jógee. mel na ni daal tànk yaa ngi manifester feneen nga jógee waaye boo dee ci dëkk bi nga dëkk moom. man ñi faatu ñëpp Diop Ndiaye. waaw Cissé Fall. waaw Mbeng wala wala wala Jéeju. wala Nangam. Hmm. sant yooyu nga sant. te ñooñu ñëpp man jàpp naa ne Sénégalais lañ. effectivement kon ñi li ñuy nekk ay caaxaan lañ da Macky Sall jamono ji xaw ma fu mu nekk. Hmm. mais xam naa ne am na lu ko naqari. Hmm. ndax dana dana ni gars yi dañ ma nax. ndax man biñ bi man bi ma toppee télévision yi di bàkku yëpp. naan li fi amoon du fi amaat. ndekete man mënumaa contrôler dara. xëy na ba situation bi egg si fii mu egg mais nag ñun dañu lay yàgg wax ni la Ben Ali daa amoon population boo xamante ni 30 pour cent yi ay takk der lañ. Hmm. boo nekkut policier wala nga nekk gendarme yaa ngi ci armée bi. Hmm. waaye teewut ba ñu rayee benn foofu le ba non sax benn ambulant moo jote benn agent municipal mu ne da ko te sax bañ hmm. mujjee gëstu agent municipal ba mbéju ko xëy na jote woon nañ. waaye mbéju ko. kooku mujjee caa jëlee naqar. ngir injustice yaa amoon ci dëkk ba ndax kooku faatu tamit buñ ko faatalee ndax day am solo ci contexte bi ñuy dund. Ah. mooy Mouhamad bu Aziz si la tudd. dafa ah. nekkoon ab étudiant. Hmm. jàng ba def formation ba pare te mënta am liggéey.